ko fa ba ba coy yi ñëw man bokk naa ci Canada fii gars yi gars yi xeex ñu leen di woowal police man bokk naa ci te mun naa la wowal ay nit yu fekkee man fii may raak parce que Seydina Mohamed raak loolu yombul fii de ay ban sénégalais moo am fitu di dóorante ngeew fii vum ba ba ñu woo ay ñaari auto police man wool nañ ma ñaari auto police il faut demander à Alassane Alassane il faut donc il faut demander à El Capo bu dee mi ngi fi dóor toit boum ñu indil ma ñaari auto gel bi daw gelam daw ti daw woo police ñaari auto police embarqué vous pensez que yéen ñi ñi ñi fii fii sénégalais duñ def loolu de man rag faalewu ma jeel jeelu Espagne nokk naa fa espagnol ñu jël ñu yóbbu ma gris nokk espagnol football match benn espagnol di dof dof ma dóor ko épaule mu retourné ma dóor ko fa mu ñu dem jël ma noq ko fa ba police yi ñëw ñoom ñëpp daw dugg seen oto daw ma xaar police police ñëw ñu yóbbu ma ñu yóbbu ma gris Espagne à Valencia ma toog nii garde à vue je sama kër ak yeewoo jeel ba yaa yemale ku ma tooñ dama lay noq kon élément lam ba ngeen di wax moom tey mu faatu moom ndax ndax moom daasal naa ko jaasi te jaasi laa koy rendee dinaa taqale boppam ak baatam dinaa dugg ci dossier ay document am tout pour muy clair njaayum drogue tout waaw ñaari auto police ma mujjee ñëw fii ñaari auto police ab tubaab laa noq fële ca sans talon ñaar fes tepp armée jusqu'au temps ñëw taxaw buñ ma ñëwee wéy dañu sax ñi sax wax ñi ñëw di ça va ma ça va ça va ça va oui, oui, oui, mais ça va oui monsieur on nous a appelé tu as agressé non je ne l'ai pas agressé suis foutu de ma gueule je l'ai cassé sa gueule je lui je lui ai cassé sa gueule s'est foutu de ma gueule je lui ai cassé sa gueule ah bon, oui, non mais monsieur, est-ce que vous savez que, comment c'est de la qui Oui, sinon, s'il porte plainte, euh, on risque de vous amener parce que c'est un dossier criminel, whatever. Que ça soit un dossier criminel ou bien un dossier, je, m'en fous. Vous faites que mon day porte plainte, dem porte plainte, vous avez me monote, monote, madame. Même vous me tournez, vous me tournez, je me suis nocat. Sixième

Amérique sax ku ma tooñ ma noq la France ku ma tooñ ma noq la États-Unis ku ma tooñ ma noq man damay raag dóor bum bum bum ba fu mu yem neex boo mu ne rey ma bu ma la mënee rey la du ma tàppet du ma ragal du ko ñuy napp du ko ñuy ñëw mooy wax benn affaire nga naan ma wéy boo noppiwul ñu nangam non demal nga wax ko Macky Sall tàppet dugg nga foo xamul maa ngi ñëw ci Eliman Lam te képp ku ci yor dossier indil jël ma ci suuf nga jox ma njaayum drogue am ak lu mu am lépp ma def spécial élément lam ku ci maa ngi appel maa ngi woote képp ku ci yor dara loo xam indil ma ci élément lam ak la ma ca yor ma dóor ko fi euh, opération rëbb dëmm dàq ko fi topp ko ba pare woote Sénégal yëpp ñu pare bés bu amee raak boobu noonu dañuy attaqué ji élément lam nangu lépp parce que suñu rakkee la jaay drogue c'est imbécile là vous foutez de nous boo leen demee juutu joxe seen taaj éliman laan laal vous pensez que da ngeen di ñëw ci man naa oui bu laa éliman laan boo ko laalee ñu nangam seen affaire menace de ngeen di def Sénégal la ça passe pas avec moi ça passe pas avec moi da ngeen xamul kan ngeen amal affaire te bu leen si sama entourage ne leen wax ni kii négocier ak et j'ai trouvé depuis boo ko waxee ba léegi ces familles là yoo xam maa ngi leen attaqué bu ñëwee dañuy négocier gisuma ci kuy menacé te boo leen laajoon Elimane Lam moom ñi mawuma menacé boo leen laajoon moom moom moom ngeen di tof tof boo leen ko laajoon danaan leen moo tax xam nga buur aayul dag yaa aay ñuy wax ni ñooñu buñ demoon laaj Elimane Lam Elimane moom boo ko joxoon quarante téléphone na ko numéro moo laa ngi ni ñi woo lan ñi may wax ñi que may di wo ay seen ñi ci taat ci yi di <laughs> vous êtes malade mais vous n'avez rien compris xamuleen ki ngeen amal affaire kuy kuy song Ablaye ba ko ba dam ci mu song Macky ba légui di ko ay ba mu nekk dans le coma munul élément ku jàpp yaayu jabaru Macky Sall ne yaayam pute la dañ ko fekk ñu koy laal <laughs> kooku mënul bàyyi Elimane Lam da ngeen a dof de dama ne jabaru Macky ku attaqué ndayam moom ku ko jur ne ca kaw nag dañ ko doon time ku dul jëkkëram kooku mënul bàyyi Elimane Lam kuy attaqué Mansour Faye l'insolent li l'ignorant l'imbécile kooku mënul bàyyi Macky Canada gi mané ma Viviane bi embassy bi ni ma attaquer ma attaquer ndayam ki nek ci ambassade bi fi sa à côté kooku mënul bayyi kenen ambassade bi dem ba ca ambassade ba di tàngal dafa indi ay problème dafa indi ay ciow kooku kooku kooku dawul ciow de dawul ciow de kuy attaqué ñooñu kooku <laughs> Elimane Lam sama suuf tànk la nekk nii dama koy rajaxe nii benn yoon mu seey ay baayami baay ay maamam laay yanu di nokk ci suuf di toog seen kaw xamuñu ku ñu amal affaire ils sont bëgg xeex namm xeex moo tax may attaqué sax ñi nekk fii ci ambassade bi ci consul Sénégal bi nekk fii ces imbéciles la nga xam ne liggéeyuñu taxawaal rek lañ fa nekk même internet bu nekk foofu dañ ko def code bu ma ñëwee loolu laa leen wax imbécile lu day ni consul Sénégal au Canada ngeen jël seen internet bi di ko def code non monsieur defal ndànk non voilà bu non boo laajee code bi ñu jox la laajuma code même internet da ngeen ciy def code fils de pute ngeen di sàcc ay milliards sénégalais ñu leen koy versel fii liggéeyu leen kuy woote téléphone doo leen ko jël xam nga ne kuy kuy namm xeex bay song ñu nekk à côté bàyyiwul ñu ñu ko sori kon man bokkuma ci ñi ñuy yabal ah, booy demal nga ne ko nangam rien ne mebral rien ne mebral rien ne mebral dara yëngaluma dara dama lay rendi nan sama ndox wala ma teg sama zeum wala ma nan sama ataya wala ma nan sama café na ñew ci element lam bu mettee sax dama ragal élément la moy woote na non wala man def ñoo ñu dara wu ma len bu mettee ba metti bés bu ma duggé ci famille boobu nu wax ni ba ci bayam bijoutier ba xol yor laam ba takar sen ma dugg sen bir kër ga xoolal élément laam moy taw ñëwaat mo la man waxuma dara de ñooñu xëy sa wu leen da xawma len sax di laay ñoo ñoo di joy sama kanam on avance da ngeen xamul man ku ma fii fëgg maamam nga mu yónni laajal Babacar Ngom Sedima ba may wax fii ci Ndingler géwélam yi wër ko xaar ñu woo Mollah waxaloon naa leen ko fi vous avez oublié oui Mollah ça va bien on aimerait que ñu passe la Babacar ngeen waxtaan parce que xam naa ni euh, vraiment combattant nga jàmbaar nga mais problème bi da nga ko maîtriser ma ne ko bëgguma wax ak Babacar Ngom avant wuy bëgguma wax ak Babacar Ngom amul lenn lu ma war a wax ak Babacar Ngom ah d'accord ñu coupé ci jamono sédi sédiment ba ñu sàccee suufu Ndingler bi te raconté woon naa leen ko fi loolu moo tax waxul man amul ku nekk déggoo ma ne ancien spermatozoïde futur cadavre lu taxaw sama kanam may may lox ancien spermatozoïde futur cadavre munul taxaw sama kanam ma lay ragal man yàlla laa ragal ragaluma nit yàlla laa ragal du nit du ancien spermatozoïde du futur cadavre lépp luy ancien spermatozoïde futur cadavre jox naa la cër cërale naa la mais boo dof dof loo ma song la ak loo mun a day man du ma ragal benn ancien spermatozoïde futur cadavre ku dul allahu subhanahu wa moom buur bi yàlla moom kese laa fi ragal ku dul moom ragaluma la ak noo mën a day ragaluma la mais danaa la jox nag cër danaa la suturaal danaa la jox li nga yelloo mais boo boo dépassé barrières yi ma won la ni yow yaay ancien spermatozoïde nga futur cadavre nga doo dara ab xottu nga buñ la dugalee ci suuf sii laa la sax yi ñoo lay lekk da ngay nëb explosé sax yi lay yëy ba nga jeex takk un ko ku gas foofu fekk fa ay yax yu seey un kon yow mënuloo sa bop dara do tous do nix fi kenn mo fi nek buur bi allah ñun ñep ay jam lañ ñun ñep ay jam kessé lañ donc fi ay menace lolu ça passe pas ça passe pas avec moi non ben menace ancien spermatozoïde finir cadavre du jaar ci man ak ko mën day ak couleur bo mën a let's go guys ok Mansour maa ngi ñëw ci yow semaine prochaine incha allah spécial Mansour Faye am na yeneen caga yeneen caga yeneen caga am na tamit ay enregistrement yu ma am mais souvent j'aimerais pas defar dugal enregistrement yi parce que ñooñu ñu ngi Sénégal mais am na jigéen yu bëri yu expliqué ni Mansour tëddee na leen seen tur yi seen sant yeeg tout ak caga yu mu yore ak donc amaat na yenen document yenen dossier donc euh, samedi prochain vous aurez ben spécial Mansour Faye njabotam yi nak ña ngay commencé wooteek ak ñaan ak saraxu waaye nee len luy tax ma baye Mansour Faye moy mu baye di teuddé suñu rak yi jigéen ñi di len jox alalu askan wi suñu rak yi jigéen ñi bu ñu cagatooyee ñoom seen cagatu la ñom mom sen dar pain buñu ñu jox la sen dar pain xam nga dar dafa metti Mansour Faye du wa dar tok ndar ñu tek ko fa mu nangu suuf ya jënd suuf ya mais Mansour fay jël ay doomam may benn doomam bu nekk foofu noonu um di sol yu xat yu gàtt mais gars duñ ci time parce da leen xeeb te papam sàcc la lu ko wax na nee ko ku ci jox nar paanam taaynam taaymal on s'en fout waaye doo leen jox suñu xaalis doo leen jox suñu xaalis nga jël leen ci appartement di leen fay ci suñu xaalis république bi di leen jëndal ay terrain suñu suuf di leen wala di leen sàcc suñu suuf di leen ko jox loolu laay xeex donc ci loolu laa ne te parewuma ci moom comme nee nañ démb kër ga daa yëngu kër ga dina tàkk dina taal kër ga ba mu tàkk jëppeet jëppeet allah lundi insha allah bu ko euh, euh, samedi prochain insha allah bu ko kenn tardé vingt heures gmt dinaa ci def ay annonce ay bande annonce mamadou mansour fay samedi prochain vingt heures gmt na aduna yëpp taxaw ñu génn leen caapa yëpp yu muy tëddee ndar paan ya hôtel ya xaalisam ba njabootam ga lu ñuy yor tout tout tout sur sa famille zoom sur la famille de Mamadou Mansour Faye kañ la juddu fan la juddoo fan la bu muy màgg fan la dem yépp lu mu def lu ko dugal ci caga lan moo ko dugal ci cuucum boobu noonu ma ma cuucu fay lañ koy woowee sax léegi kenn waxatul Mansour Faye ma cuucu fay foo leen déggee ma cuucu fay moom mooy Mansour fay maa tuddul Mansour Mansour dafa sell ma cuucu fay ma cuucu fay ministre ma cuucu fay boo kenn fàtte ministre ma cuucu fay mooy boroom cuucu ba tam ciy diw ay diw yi muy tëddee gel yi ak di naan ay Viagra ma cuucu fay bis ni tey loolu la tudd ma cuucu fay waaw te dinañ ko lijjanti samedi incha allah samedi ngeen ñëw kaala waxu ndar paaxen la waxu sullu la bu leen ko tardé te xamna parce que ko tardé parce que lolu kessa la nu leen Mansour di timé nu len di juutalee nu len di sëggalee nu len leen yëpp yëpp film pornographique la samedi Mansour le ministre Mansour Fay, le pervers narcissique Mansour Fay, ou bien le lapin flingueur Mansour Fay, dans tous ses états dans tous ses états Mansour Fay à l'assaut des filles de nar. wa devez doy waar la ma cuucu fay kon donc samedi prochain inshallah allah la kër guy tak da boyal la koy def boyal la la fourno furno donc waxna len leen yëpp sacc sàcc alal di ko jox sen doom ay ñoom Mansour Ndaw ubbi na sax benen showroom legi Mansour Motors Mbour mi ngi koy publier publicité benen bu bes amna Almadi am na am na mbuur ay milliards loolu lépp blanchiment d'argent la yoo xam ne xaalisu suñu xaalis la yu Macky saal sàcc ay milliards jox ko doom ji Amadou Amadou mënul téye loolu ci milliards ndax nu mu baree xajul ci àdduna mu ciy jox Mansour comme nu ma leen ko waxee bàyyam mooy ndukkumaan transit waa Kaffrine lañ mooy baayam une grande mafia organisée au sommet de l'État blanchiment de capitaux blanchiment d'argent. Et c'est ce qui ont étranglé ces pays là matuñu une poignée de personnes te ñoom lépp buñ ko indee la douane day exonéré eh, eh, seen taxi oto bu buñ dugal fi, ñoom ñoom gang boobu non, gang bandi non, noonu doomu bandi yi doomu caga boy bandi lañ mais seen baay ay caga lañ doomu caga yi bandi douane day exonérer taxe duñ fay ñoom ak naar yi ñu àndal ñu créé benn système capitaliste bu énorme di nappaaje sénégalais doon ay bourgeois di nappaaje sénégalais yi bàyyi leen ci extrême pauvreté nekk ci l'extrême richesse y en a d'autres y mi ngi ci biir le grand frère de Khalil Ndiaye Khalil Ndiaye jàpp leen tur boobu Khalil Ndiaye moom it ci ñiy blanchir euh, xaalisu la famille Sall fay Sall la bokk fay la famille fay Khalil Ndiaye ci ñiy blanchir xaalisu milliards yi nga xam ni la famille fay dañ koy sàcc ci fondation service le Sénégal ci Amadou Khalil Ndiaye magam mooy Lindor mi ngi am parking bu dend ak euh, bu Aziz Ndiaye bi fële ci côté gendarmerie Foire oto yi ngeen di gis foofu ci gendarmerie Foire loolu yëpp bës bu affaire yi amee jàppaleen oto yu taw yi ngeen di gis yu xaay yooyu level yooyu préparé wu leen bës bu révolution bi amee dinañ ñëwaat fi wax leen sénégalais yi fépp fu ñuy dem fu ñu war a boyal fu ñu war a taali foofu ci la bokk wetu gendarmerie Foire nañ ko assiégé nañ ko encerclé foofu oto yi leen ne te lim door yor ko foofu noonu le frère de Khalil Ndiaye sañu alal la ay oto yu tooy yoo ne mi ngi nekk wetu côté gendarmerie foire dend ak euh, parkingu Baye Ndiaye foofu tamit à bu ñu bàyyi dara nañ lépp pënd pënd ak poussière donc nañ ko préparer ça un fa rombati gendarmerie parking parking juste côté gendarmerie foire Khalil Ndiaye notez-le bien Avec son frère Lindor ay milliards la c'est à noter Pour le ko de toute façon duñ ko voitures de luxe à 0 km.

bàyyi leen di lekkee fële ca sekkaca suñu alal la yu ñu sàcc ñoom teg ci seen tànk ay milliards sekkaca am na almadi sekkaca am na ci jamñaajo ubbi na ñu woon leen lépp sekkaca Amna na almadi Où dañ ko annoncé mi restaurant chez Kacha almadi ñom rek ño fa ne ñom kese mi ngi ni ma Kacha a bien démarré ses activités hier c'était 2021 donc Kacha ñom maram fay Faye ci ginnaw nan ngay ñëwé espace de centaines de milliers d'hectares benn restaurant kese am fa moom rek moo war a jaay ndox moo rek moo war a jaay lekk xoolal banditisme d'état boobu blanchiment d'argent donc c'est Katia bi nga xam ne mu ngi nekk fii nga xam ni moom mooy euh, euh, euh, Diamniadio c'est à noter c'est à noter comme ubbi na bu fa kenn lekkee nii pizza ni burger ni shawarma ni poulet bu fekkee lekkee dara nañ fay dem di répertorier di xamni bëss bu ñuy fippu di nang di nang luñu mom di nang luñu mom opération nang lu foqat li nga mom foqat li nga mom boba nañ dem fofu parce que ñun ñoko mom lu fa nek almadi gogu ñoko mom moom te dinañ ko jël kaca al dinañ ko nangu kaca jam ñaaju dinañ ko récupérer ñoko mom suñu alal la blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux jox la famille Marème Faye jox éléments Lam mu blanchir de l'argent sale route nationale numéro 2 allant vers Mbour dans la station Petrosen Petrosen voilà Notre leen ay milliards la yo xam ñun ñoko mom té ñom rek ño am droit jaay lekk ca jam ñaajo ci aéroport ba sphère sphère ministérielle stade Abdoulaye Wade stade du Sénégal du moins benn restaurant la am mooy restaurant Cheikh moom kese moo am droit jaay ci stade moo kese moo am droit jaay lekk ak naan mu nga ca biir stade ba suñuy milliards la yu ñu sàcc di ko blanchir la famille Faye sàll ñoom Amadou ak et cetera ñu jox ko ñu jaarale ko ci Elimane Lam mu ubbi ci stade ba moom kese. waaye yow dëkk boo xam ne ñun ñun moom suñu bàyyi lu ñu représenté ci réew mi ñun xanaa dañoo jël sànni ñu ci mbalit yi ay doomu biddo xaram éliman lam yi nga xam ne ñoom dañuy ñëw récupérer ñoom ñoom mais nan nga mën a nekk benn doomu aadama kese képp fu mu ubbee restaurant kenn amul droit ubbi fa restaurant mais loolu ban dëkk la am ban dëkk bu am démocratie moo am loolu benn doomu aadama bu récupérer lépp yor monopole tout

mais ça va, ñun ana suñu parents est-ce que nous lii les mérité est-ce que am nañ fierté nous Nous ay doom de nous. Nous seen morom seen nous. ñom am doom seen doom Nous sommes ñu ñun nous. suñu kaw fiers yi on l'appelle Yoro peut-être son père euh, le père d'Iliman Lam s'appelle Abdoulaye ok c'est un bijoutier mais man euh, gënul sama sama baye ko dakka jang moko ko liggey lu mu def ci fi mum bayam defu mais est-ce que man sama baye won mum jur domam abdoulam jur domam mais abdoulam bëgg ñew mu bëgg ak bëgg tok sama kaw bop bi bëgg day ci sama digg bop bi ben domam élément la bëgg day ci sama digg bop bi bëgg récupérer sama milliard xana man sama nday liggéeyul man mais yenn yi ku ko nangu yow la neex way amna yenn notel yo xamni ku ko nangu yow la neex C'est notre argent, on va les récupérer. On va récupérer cet, argent-là. Et vous le savez, lol motax ñi xex sonko di toroxal sonko ne sonko sonko day falu. Lol len ci bañul ñuko ci. Deggo mané len dañ len di ray wala ngeen ray ñu mais sonko day falu. Wallahi l'azim. Li xam nañ li ngeen di bañ, li ngeen di bañ lañuy def. Sonko day tok fi. te dañuy ànd ak moom par la force di leen rëbb yéen benn par benn di leen nokk di nangu alal gi par force di ko dugal ci réew mi di ko ubbil ay entreprise askan wi di ci liggéey billaahi wallaahi wa taala yi dinañ nangu lépp loo leen teg seen loxo lépp lu seen tur feeñ lépp lu seen tur feeñ dinañ ko nangu par la force doole mbaam jël ko investir ko fii ci askan wi askan wi di ci liggéey di ci daan seen toole yoralam bijoutier moy bayam bijoutier la bayam bijoutier la yoralam lolou lañ ma jox information dem ba léegi te dégg na ko ñaar ñaar ñaar nit ñoma ma même chose yoralam bijoutier mooy moy moo ko jur donc voilà donc pare élément lam lu am sa don miliarder milliardaire da tax nga don milliardaire man sama bay di milliardaire man ma judd ci alal man luma am mako liggey sam sama man ñew ma ñu jox ma alal gi barki alquran fu ma ca la ma juddoo merci beaucoup kon ñew na luma waxon rek fu pa ma ngeen duggal ma ci ay erreur papam Yoro Lam la tuddu mi ngi ni immeuble bi nek chonk Yoro Lam mo ci nek il était à Ziguinchor mom la mom kay eh,

ma dem dugg ci famille yooyu am fa ay récupéré récupéré récupéré récupéré récupéré loolu moo tax man lu ma wax rek takkal téere moo tax bu leen ma bu leen ma brouillé voilà Yoro Lam bijouterie Aline Sitoé Diatta bu leen ma brouillé bu ma leen waxee rek déglu leen xëy na nag mun naa juum ci lu lu may jox bëy ma xaw a jaxase mais du ma juum ci affaire yi parce que ki ma ko jox dafa maîtriser Sénégal téye Sénégal téye ko maîtriser ko du wax du waxantu te bu ma joxee bu ma demaatee même chose lañ may wax

ay doseur yaa ngeen gis ay taxawaalukat lañ ay doseur lañ duñ dara kii mooy Eliman Lam ñu ngi nii la la gang des bandits la gang des bandits ñu ngi nii kii mooy Eliman Lam duñuy ñuy kat ay kat lañ ay kat lañ ba seen tàttang blanchir xaalis rek lañuy def blanchiment d'argent mais de toute façon son père n'est pas intéressant ñun rëbbuñu son père ñun Elimane Lam moo yor suñu xaalis son père lu mu am lew na ko donc na nekk bijoutier na nekk menuisier na nekk ñun son père rëbbuñu ko son père a travaillé son père forcé wuñu doomam ñun bu ñàqee fayda ba doomam am ci ñun droit ba doomam di ñu jël di blanchir suñu xaalis loolu ñun la man moom am ku ku laalule ku laalewul jaruñu koy wax vraiment papam na tudd Yoro Lam Mademba Lam Khady Lam Kina Lam we don't give a damn kooku bokkata laam ak tuunu lam la ñeemale ñun ñooñu intéressé wuñu papam intéressé wuñu ñun wëruñu papam ñun imbécile bi lañuy wër élément la mi lañu bëgg japp noko ko nangu suñu milliard mo yor suñu milliard bayam yoru suñu milliard donc on s'en fout de son père ki ne liguey ngacc fos ne liguey maçon bi don't give a damn sacc bu mu jur ñun sacc bi mo ñu yoral sacc bi donc vraiment di wax ay élément lam baay ji moy faatu lam ma dembalam lam xadi lam intéressé wuñu On n'est pas là pour, pour, pour, pour mort l'âme ou de l'âme. On est là pour cet imbécile-là, de merde-là. te dire lui. Nous qui mon Dieu qui qui la ñu opération rëbb de jàpp ko mu delloo ñu suñu xaalis blanchiment d' argent kii moo ñu moo ñu mon ñu sohal. voilà kon laisse focus nañ concentré sur l' essentiel te bàyyi tel di werante loo xam ne amuluñu benn njëriñ amuñu benn papa papam la mi ngi fële di liggéey na les liggéeyam on s'en fout de lui vraiment il faut se concentrer sur l'essentiel Ça, nous ñu focus gars yi da ngay wax a ah, ñu commencé à bëgg le affaire ngay cabinet cabinet on s'en fout ñun kër gi lañ wax ci cabinet force bi nekk ci mbedd bi ñuy wax ci de force bi nekk ci force Nous force bi kër la faire di day euh, euh, euh, force bi di force ñu nekk ci force bi ñu ne ci douche bi kër gi kër gi dugg ci douche bi di day douche bi ba force bi fees ñoom la ñuy lijjanti ñun ñëwuñu pour lijjanti force bi. donc voilà ñoom ñëpp ay ñoom pepe doomu Baba Diaw Itaw man di rek lañ fi nekkee.